ne mi ngi dal ci jeunesse am dal boo xam ne bu doy waar ay xale yu bëri yuy sànq alal joo xam ne ñu ngi koy sàndi muy réer yoo xam ni du am benn retour du amati benn rendement mbokk yi loolu ab danger la ci suñu société waaye danger la ci suñu ëllëgu réew ndax jeunesse su tey jeune tey ñooy nekk papa ëllëg ñooy nekk yaayu ëllëg ñooy nekk ay ministre ñooy nekk ay jàngalekat ñoo war a yore réew bu ñuy songu géej ñu bëri di ci faatu ñii di jël seen alal di ñu waroon a investir ci liggéey sànni ko ci géej alal ji naax saay loolu réew muy doxee noonu danger la ci am réew yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi lu aju ci mbëkk mi nit ñi di def xale yi di def di songu géej gi di tukki nekk lu bees judduwul tey lu yàgg la xew-xew bu yàgg xew la mi ngi bëgg a jege daanaka at yu yàgg bu ñu xoolee daanaka yàgg na lool mais ci façon bii nga xam ne nit ñi ci la ñuy li ñuy tuddee recrudescence bii am song ko ci façon boo xam ni dee ak dund lañ yemale euh, loi bu ñu teg ñu bëtt ko faale wuñ police faale wuñ gendarmerie faale wuñ justice ndax jàpp ne dañoo sonn dañoo toll ci jamono joo xam ni foog ñu tekki far force foog ñu tukki foog ñu am jàpp nañ ne koomu réew mi bokkuñu ci am amu réew mi boole wuñ ci réew mi mënuñu fee tekki mënuñu fee am liggéey situation bi ñi muy doxee nii ñii pauvre dañuy continuer di pauvre ñii ñàkk di continuer di ñàkk ñii am di continuer di am ñu jàpp ne solution bi mooy soggu géej gi ak lu leen ci mën a fekk mbokk yi loolu judduwul tey mu ngi bëgg a jege daanaka ci façon bii muy amee lu jege fanweeri at daanaka ci début 2000 wala lu ko jiitu tuuti ñu dama dem ba wutal ko baat boo xam ne moom lañ ko tuddee wutal ko slogan boo xam ne moom lañ ko tuddee muy Barça wala Barsaq Barça mooy dem Barcelone far force wala dem Barsaq far force mooy dem dundu Barsaq da ngay jaar géej gi dem Barça àggoo Barça nga dem nga jaare fa dem Barsaq ñu dama dem ba mentalité boobu moom la jeunes yi di wax tey mooy Barça wala Barsaq àgg Barcelone wala des ci géej dem Barsaq mbokk yi loolu lu raglu la ci am am réew am société li ci yéeme mooy booy xool suñuy autorité mbir mi ak ni muy démarche bi ñu mu gaawee vitesse bi muy dawee gaawaay bi dafa mel ni ñoom dañoo jaaxle ci amal ko ay solution yoo xam ne solution yu convenable la solution yoo xam ne yu ànd ak jamono solution yoo xam ne aussi dal na xel ci ñi nga xam ne ñooy dem di songi waaye ñi nga xam ne ñooy observateurs yi toog di xool ci société bi xew-xew yi fi am mu nekk loo xam ni dañ naa dana wàññi wala dana jeexal mbir mi mu nekk loo xam ni dafa nekk lu kenn xamut euh, daanaka noo koy firee waaye ci moment boobu yaa ngi gis wax coow lu bëri di ci am ci média bi média bi nga xam ne moom la ñuy seetaan ñu ngi ciy wax média bi ñuy déglu ñu ngi ciy wax média bi bind ñu ngi ciy wax waaye wax ji coow lu bëri la mais solution yu pratique nekku fi coow pour coow la wax pour wax la mais solution yu fiable yoo xam ne dangay teg nit ki ci yoon mu jaar ci mu mën a gis résultat daanaka amul kii de ñëw waxee xol kii ñëw attaqué gouvernement kii ñëw attaqué ñu koy def mu jeex xol yi tàng après mu jeex mais amul solution mbokk yi loolu moo tax ñu war a taxaw seetluwaat ñun africain mais ñun sénégalais ñun sénégalais dañoo spécial ñu xoolaat ñun sénégalais façon bi ñuy xalaatee façon bi ñuy dundee façon bi ñuy gérer suñuy crise ak li nga xam ne mooy suñuy jafe-jafe ci suñu biir société nga xam ne dañu ne musal réew mi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp a ko bëgg ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy mu réew mu développé réew mu naat réew mu am jàmm réew moo xam ne ñi fa nekk dañuy dund dund gu neex dund seen diine jaamu yàlla faatu dem àjjana loolu pour mu am nag ah du façon bi ñuy doxee nii ci lañ koy amee loolu moo tax balaa ñuy dugg ci leeral li nga xam ni mooy cause yi tax nit ñi def émigration clandestine façon émigration clandestine yi am danger yi nga xam ne moo ci nekk observation yi nga xam ne moom lañ ciy def taxaw seetlu yi ak li nga xam ne mooy effet yi muy def ci individu bi ak li muy def ci société bi ak liñ jàpp ne mooy solution yi nga xam ne buñ ci jaaree mën naa mën naa defar loolu balaa mooy jiitu mbokk yi dinañ wax ni ñaari ñaari facteurs yi muy pauvreté ak ignorance pauvreté mooy nit ku ñàkk ak nit koo xam ni xel mi nekku fi jàngul yeewuwul ñaari musiba lañ ci nit musiba lañ ci société nit ku jàngul ba pare ñàkk musiba la ci ak société moom ci boppam danger la moom danger la nit kooku danger la mais société boo xam ne nit ñi dañoo ñàkk ba pare jànguñu société boobu dund fa sax danger la wallahi danger la danger bu doy waar te ñaar yëpp dañoo dal dañuy dund société bu pauvre mais société boo xam dafa bëri ignorance dañuy wax loo ku warta wax dañuy yëkkati ku ñu warta yëkkati dañuy duut baaraam ku ñu wonte duut baaraam wàccee ku ñu waroon a yëkkati wàccee koo xam dañ ko dañ ko waroon a yëkkati waruñu ko woon wàccee loolu ñu li ko waral mooy ignorance mooy ñàkk a xam mooy aljahlu te ñaar yi musiba lañ mbokk yi ñàkk ak pauvreté muy ignorance ak ak pauvreté dañuy dem a dem ba jàpp la ba ni nga waroon a xalaatee doo xalaat bu ko defee li ngay mujj mooy dangay ngay consommer lekk dañ lay jox nga consommer xalaat dañ lay xalaatal da ngaa waroon a xalaat keneen moo lay xalaatal jox la nga consommé xalaatam yow li nga ji nga jël du sa xalaat même soo toogee ci plateau télé di ko wax xalaatoo ko dañ la kaa jox nga consommé ko toog di ko wax da ngay consommé lekk consommé xalaat yemoo fa mais ay moo sax ay baat sax baat da koy consommé même baat yi ngay wax du say baat baati jaambur ngay jël di wax yow amoo munoo xalaat parce que dangaa ñàkk xam ba pare ñàkk alal lu ñu la jox nga jël consommé xalaatu jaambur consommé kàdduy jaambur consommé lekk jaambur consommé naanu jaambur bu ko defee yeneen yi door a ñëw fi ngay tëdd ak fi ngay li ngay sol lépp consommation la feneen la jóge xala intaajo sa à dire produiroo dara defaroo dara mbokk yi loolu la ñuy dund moo tax dafay doy waar lool ngay seetaan di seetantal gis ni ñun ni ñuy xalaatee daanaka jamono da koo xaw a dépassé te léegoo léeg da nga naan ndax ñu ñuy dénk suñuy mbir ñu ko yore compétence bi war ci ñoom mi ngi fi wala nekku fi crise yi am yëpp boo ko xoolee liñ ci soxla mooy solution mais du xeex suñu gaa yépp tey réewu Afrique yépp li ñuy wax mooy xeex corona bi mu ñëwee dañuy xeex ak corona corona nooy xeex ak moom nooy xeex ak moom loo xam ne feebar la virus la te li ci te li ci am sax ay tappale ay nit a ko defar sànni ko ci àdduna bi di ay doomu aadama pour ay intérêt socio-économique ay intérêt géopolitique sonal ci doomu aadama yi fàtt ñu bëree bëri ñu ne dañuy xeex ak moom loo xam ne ci yaramu doomu aadama da ngay xool noo amee solution mais toujours baatu xeex mbënd su amee dëkk bi taa ñu ne dañuy xeex mbënd mi mbënd noo koy xeexee loo xam ne yàlla moo wàccee taw mu ne fi doo wut solution doo ne dañ koy solutionné waaye xeex looy xeexal kan la ñuy xeexal nu ñuy xeexee lu tax ñuy xeex est-ce que dañoo war a xeex est-ce que mbir mi xeex a koy faj mais xeex xeex xeex baatu xeex lu ñuy xeexal lan la ñuy xeexal loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ ko bàyyi xel mu nekk loo xam ni il faut ñu changer waat tuuti xalaat fi ci ñu ñuy joxe ay crise dañ indi ay solution te bàyyi xeex ba ñuy song baatu xeex ba léegi di wax xeex ñu ngi xeex te daanuñu li ñuy xeexal baatu xeex boo ko waxee xalaat yi fi ñuy gën a dem mooy ci mbirum doole mbirum yëkkati doole mbirum mbirum kàttan moo tax dangay bàyyi xel booy ñëw affaire doole ngay jaay doo fi teg xel mbënn mi bañ koy xeex ba léegi inondation yi chaque année ñu am inondation parce que baatu xeex la ñuy jëfandikoo bu ñu waxoon baatu solution wala baatu leneen boo xam ne day jëm ci indi saafara saafara mbënn moo gën a yomb moo gën a jub moo gën a jaadu buñ bëggee am dimbalal yàlla xeex mbënd mi bu ñu waxoon saafara mbënd mi sax amaana yàlla ki ndimbalam waaye xeex mbënd mi yàlla seetaan ndax li ñuy xeex dana sotti loolu bokk na ci li nga xam ni euh, ni ñu war a soppee ni ñuy xalaatee la beneen bi sénégalais moo xaw a doy waar ci wàllu xalaat yi mbokk yi sénégalais mooy toog ci xalaatam ñu loo xam dañ ko koo jox mu consommé ko nga toog mu naan la diw tuddal la benn waay borom yi may la woon saaxibu ataa yàlla borom yi may la woon dafa amoon ay xususiyaat dafa amuñ ko yàlla jagleel ci naka mu ne da doon dekkal da doon dekkal ku dee diw da doon dekkal ku dee waaw kuy dekkal ku dee di dee ngay dekkal ku dee ba pare dee naa la dafa dekkal ku dee dee na laata muy dee suul na baayam laata muy dee suul na yaayam dekkalu ko laata muy dee suul nay dëkkandoom laata muy dee suul na ay fereeram ay sëram ak i maamam ak i bàjjan ak i tantaam ñu ne moom day dekkal ku dee lii mooy xalaatinu Sénégalais bëgg la koo gëmloo nag daana dekkal ku dee lu wér laa ci am waaw daana dekkal ku dee kuy dekkal ku dee waroo dee sa mbokk benn warta dee ku dee da nga ko war a dekkal dëkk ba nga dëkk gox ba ku fa dee rek daa war a dekki sa famille kenn warta dugg ci biir bàmmeel ñu suul ko ku dee fi sax da ko war a dekkal léegi xelum sénégalais rek moo moo nangu li moo ñëw di la ko wax sañ cee xuloo sañ cee xeex di ko argumenté mer ci dëndam tàng ci boo waxee mu ne la yow da ngaa gëmut wala da ngaa mën a weddi yemuñu foofu yemuñu foofu gën naa romb loolu euh, xalaat ba ba gën a sori loolu sénégalais mooy ñëw ne ne day tudd yàlla day tudd yàlla dafay sikk nga ne ko waaw mu ne léegi pour moom mu zikr yàlla lay woo mais pour woo yàlla day takk haut pour woo yàlla man soo may woo man nit jarul takk haut-parleur man nit damay dégg li ngay wax yàlla mi dàq dégg lépp nga ne yow da nga koy woo haut nga koy wooyee yàlla da ngay yuuxu pour mu dégg la yàlla mi nga xam ne xam na li nëbbu xam li feeñ li nga xalaatagul xam nga ko lii sénégalais moo ko mën mooy xalaatee nii takk haut-parleur pour di woo yàlla nit sax boo koy woo jarul takk haut-parleur te yàlla moo dàq dégg nit yow ngay woo yàlla takk haut-parleur tànqal ay nit tere nelaw ay nit ñi feebar nekk ci jafe-jafe ñi fanaanoon ñi yendoo liggéey bëgg a ñëw guddi gi ñu noppalu duñ mën a noppalu lii mooy xelu sénégalais léegi mentalité bii ku ko yor ku ko yor pour nga diriger ko da nga am jafe waaye pour nga indil indil ko ay solution da nga am jafe-jafe boo moytuwul xel mu nëx mi ma wàll la ci nga ànd ceeg moom ba loo jublu mënoo ko amul solution parce que xel mu nëx a fi nekk mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ war a saafara pour tegewaat ci yoon pour mën a doxalaat li nga xam ne mooy suñu société mu jaar ci yoon mbokk yi bu ñu seetantalee ci suñu doxalinu réew ba tey dañuy gis moment bi nga xam ne mooy jamonoy nawet nga xam ni tàngoor wi ñëw na gis depuis ay at loo xam ni da ngay posé wu question ana suñuy autorité ana yarkat yi ana kilifa yi ana responsable yi li ñu lu bés bu nekk ngoon bu nekk fii suñu réew mbooloo mu bëree bari ci ay xale yu góor ay xale yu jigéen di songu plage yu Dakar yi foo jëm nit ñaa ngi jëm géej ay xale ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen jàngi wuñ métier jàngi wuñ ay defuñu ay formation jigéen ñi nekkuñ seen wetu yaay di togg defuñu ay métier defuñu dara ngoon gu jot nag ba trois mois vacances yi jeex ngoon gu jot ba trois vacances ba trois mois vacances yi jeex amul tëbal xanaa mu taw ngoon gu nekk mbooloo mu toll noonu ci ay jeunes ki jën songu plage géej lan la ñuy def sangu tux yàmba tux drogue tux cigarette fo caaxaan cëppi cëppi ñibbi noonu la ñu war a trois mois léegi jeunesse bu mel noonu génération bu mel noonu am na avenir am na avenir ñooñu ëllëgu réew mi ku yaakaar ñu yor ko ak ëllëgu réew mu yaakaar ci ñoom loolu lëndëmut moo raw lëndëm loolu ñu koy seetlu bés bu nekk autorités yi noppi responsable yi noppi éducateurs yi noppi ñu koy seetaan jàpp ne lu baax la du phénomène bu baax nga noppi ci loolu ñëw ci wetam gis phénomène làmp làmb amul weekend buy jàll samedi ak dimanche léegi sax bu la neexee VSD lañ ko tuddee vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche léegi vendredi samedi dimanche bu nekk dinañ tëgg làmb grand combat petit combat moyen combat sous combat lu kenn xamul ñu tëgg ko ak difficulté yi nga xam ne moom lay jur xale yi nga xam ne yëpp dañ leen bëgg a fàtteloo seeni problème social seen wàllu nàngam ñu riir wuti fa bu làmb ji problème yi muy jur développé wul mbër yi développé wul ña ànd parce que boobu léegi ñu ngi bëri te gisuñu développement bu ñu am gisuñu développement ba ña nekk am ña cay gisuñu développement bu ñu def ci ñoom ña doon daa dem làmb daaw ak jéeg ak daaw ba ren ji ñooy dem làmb te gisuñu ci ñoom yokkute ci côté économique gisuñu ko ci ñoom gis bu nekk ñooy dem boole ko circulation tardel ay nit toj otoy jàmbur fekk ñuy jaay ñu fël seeni i taabal ak seen palaat yàqu ko ah dem stade bu stade lamb ji jeexee waa ji fakkasalu na dóor nañ ko mbëkk nañ ko daaru na taq na suuf jeex na buñ paree jaxase koñ boobu ku fa romb ñu agressé la rey ci ay nit mën cee faatu lu kenn xamut ok lii réew mu koy dund réew mu koy dund wallahi da ngay toog ba yàgg jël say bagage ngay bëgg a def li ñuy dund lu métti la suñu réew mi li muy dund lu métti la ku jàpp ne li ñuy dund lu normal la lu doy waar la lu raglu la aussi lii nag suñu gaawul corriger ko dañu wax ne nañ leen nañ jullee suñu societé bi nañ ko jullee ñeenti kàbbar ñeenti kàbbar kuñ koy jullee mooy ko faatu duñ ko wax waaye buñ gaawul rectifier bal bi rectifier tiir bi mooy fi ñu jëm baaxul ci kàmb gi lañ jëm wala ci mbooy gi te ñaari benn baaxul si saaraan dem ci mbooy gi baaxul dugg ci kàmb gi baaxul parce que boo fa duggee dina la yor loxo pour génne la te yàlla nga am ku la yor sabab yi tax nit ñu tukki bari na am na ay sabab yoo xam ne phénomène social la loolu mooy nit ki dafay bëgg tukki moom njabootam wala moom kese ngir ni mu bëgg a dundee ak yi nga xam ne mooy essentiel yi mënta ñàkk ci moom amul ci millier bi muy dund amu fa mu bëgg tukki dem feneen pour gën a am façon dundin bu gën a baax am na ci yoo xam ne problème politique la nit ki dafay gàddaay dëkkam parce que amatu fa sécurité amatu fa li nga xam ne mooy stabilité ngir bakkanam dafa nekk ci menace wala ci xottu gerte wala dañ koo neer a jaay doole jàpp ko tëj ko ci anam bu dëppawut ak yoon mu jël ay bagaasam dem pour éviter ñu tooñ ko jaay ko doole wañu loxoom toroxal ko bokk na ci loo xam ne ay asbaab diine la mbirum diine la moo ñit ki dafay nekk ci milieu boo xam ne mënu euh, afwan asbaab yoo xam ne bii yi la yoo xam ne ci wàllu milieu bi ci boppam moo adapté wul ak ni mu bëgg a dundee milieu bi milieu dafa bëri ay phénomène naturel yu fay am dafa bëri ay ay inondation mënatu faa dund dafa bëri ay euh, tremblement de terre dafa bëri ay volcan wala dafa ñàkk sécurité ainsi de suite ak yu demee noonu mu jël ay bagages am dem bokk na ci phénomène boo xam ne phénomène économique la moo nit ki dafay nekk foo xam ne fii mu nekk moyen bi mu nekk nii fi muy nekk liggéey bi mu am moom bi mu qualifié fi muy liggéey li ñu ko fiy fay du ko fi jëriñ dara mu gis ne liggéey bi mu am am na réew yoo xam ne soo fa demee ci façon liggéey bi lañ la fay fay juróom benn yoon lañ lay fay fii mu ne fii defuma fi dara jël ay bagaasam daal di dem pour gën a wuti am koom yokku amam yokk li nga xam ne mooy rendement économie bi nga xam ne moom la soxla loola bokk na ci bokk na ci yeneen mbir mooy euh, atte gu jeng ci am réew bokk na ci ñàkk justice sociale lu ñu dee injustice sociale loola day tax ni ñu jël seen bagage di gàddaay mbokk yi gàddaay gi ñaar la am lu ñu tuddee exode rural mooy ni ñu jóge ci dëkk àll yi ñëw ci dëkk taax yi pour gën a wut dund ko gën a baax tey boo rombee ñi nekk circulation bi yëpp di jaay ci wàllu circulation bi nekk ay marchand ambulant ñii Saalum lañ jóge ñii ñu nga jógee Bawol ñii ñu nga jógee Kajoor ñii ñu nga jógee sud ba te foofa suufang fa ndoxang fa naat na waaye amuñu moyen pour liggéey liñ bëgg a liggéey ñu bàyyi foofu ñëw ci biir réewu taax yi pour gën fee wut ak koom yàlla ubbil leen ay bunt loolu mooy hijra daaxiliya beneen mooy hijra xaarijiya mooy bi ñu gën a sonal nag mooy toxu bàyyi sa réew bëtt ay frontière dem ci réewum jàmbur léeg-léeg avion ngay jël mën naa jaar yoon léeg-léeg bateau ngay jël mën naa jaar yoon léeg-léeg yoonu suuf ngay jël mën naa jaar yoon léeg nga jaar ci avion burle jaarul yoon amooy këyit léeg-léeg nga jaar ci bateau burle amooy këyit jaarul ci yoon léeg-léeg nga jaar yoonu suuf bi wala yoonu géej gi bëtt te amoo këyit jaarul yoon nga fas faa yéene dund ba yàlla defar sa situation boobu nag mooy bi ñu sonal lool mbokk yi am na ay effets yoo xam da koy def ci doomu aadama bi ay effets yoo xam ne yu négatif la bokk na ci mooy nit ki nga xam ne mu ngi jaar ci yoon yii nga xam ne du yoon yi baax pour tukki génn réew dem ci yeneen réew dana tumuranke dund ay jafe-jafe bakkanam des ci xëj na ci euh, ñu jàpp ko mbugal ko xëj na ci jàpp ko tuumaal ko loo xam ne doonu ko xëj na ci mu bàyyi këram bàyyi njabootam soxla waa këram bëgg a ñibbisi mu të ko namm waa këram te mënu leen a gis wala mënut a wax ak ñoom léeg-léeg bokk na ci mooy njaboot bu tasaaroo ma la nga gis benn kër ñu bëri gàddaay dem kër ga boo ñëwee màggat yi nga fay fekk xale yu góor yëpp dem nañ jeunes yi loolu ko dem ci yenn quartier yi fii ci Ndakaaru danga ko gis kër yoo xam ne boo fa duggee ay màggat nga fay fekk ci yenn xeet yi ay màggat xale yëpp jël nañ gaal yi dem soo ñëwee doo fekk xale bu góor loolu day indi njaboot bu tas te kenn xamul kenn ku nekk ci lan la nekk ku nekk di xalaat ku ne bokk na ci mooy dafay wàññi li nga xam ne mooy main d'œuvre suñu société jeunes yëpp bu ñu demee tukki mais d'œuvre bu ñu waroon a am ci ay jeunes ñu liggéey ci usines yi liggéey ci entreprise yi liggéey ci société liggéey ci maçonnerie liggéey ci yeneen nga xam ne jeune bu am kàttan moo ko am dañuy ñàkk ay jeunes yu dem su ko defee ñun dañuy ñàkk li nga xam ne mooy ay al aydi al amila bokk na ci mooy léeg-léeg nit ki day dem soppeeku doon leneen. dund ay réalité yoo xam ne wute naa ak réalité yi bàyyi woon mu soppeeku dem leneen ñaata la nit dem tukki soppeeku bàyyi diine lislaam doonub yéeféer wala mu mujj nekk ab góor jigéen wala mu mujj nekk koo xam ni jaay kotu drogue la wala mujj nekk koo xam ni leneen bon lay def bëri na kenn xamul nu mu toll mbokk yi loolu bokk na ci bokk na ci aussi mooy euh, léeg-léeg mooy euh, nit ki mën na faa jaare kenn du xamante ci moom benn information dafa faatu mi ngi dund dañ ko jàpp ci kaso kenn xamul léeg-léeg mu am jabar bàyyi ko fi ak njaboot loola nekk difficulté jabaram mu muy ban taxawaay la war a am xamatul dara ci borom këram ñetti at ñeenti at juróomi at léeg-léeg fukki at léeg-léeg ñu ne la vingt ans wal iyaazu billah loolu bokk na ci jafe yi bu baax a baax loolu moo tax ah, dana xalaat bu baax bala cee nit ki di di tàbbi mbokk yi ah, bokk na ci nag ah, li muy am ay mbir yoo xam ne yu négatif la noonu la amee aussi mbir yoo xam ne yu positif la yoo xam ni doomu aadama bi mën na cee jëriñu bu baax a baax loola bokk na ci mooy nit ki mën na faa am nationalité am fa ay kayit yu baax am fa liggéey bu gën a baax am fa dund bu gën a baax léeg-léeg bokk na ci mooy mu mën a am situation wala yombal jàng yeneen làkk yoo xam ne bëggoon naa mën làkk yooyu pour mu feeñ ci li nga xam ne mooy euh, wàllu dundinam gën cee mën a def li nga xam ne mooy ay jeexintal léeg-léeg bokk na ci mooy ñu bëri ñuy tukki mujj dem am ay kayit normal am fa koom gu bëree bëri ñoom dañuy naat seen i njaboot naat ci waaye seen réew mën na cee naat mooy xaalis yi transféré muy dugg ci réew mi di yokk li nga xam ne mooy économie réew mi di yokk li nga xam ne mooy volume réew mi ci xaalis bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dugal ci biir réew mi. bokk na ci aussi mooy euh, léeg-léeg nit ki dem fa dajeeg yeneen doomi aadama xam seen i culture xam seen aada. am fa yeneen relation yoo xam ni mën na kaa jural njëriñ yu bëree bëri ci wàllu adunaam lekk-lekk ci wàllu diinaam bëri waa na ñu tukki tey diine ju leer tukki bi biñ tukki bitim réew lañ ko amee bu ñu toogoon biir réew mi ñu ngi ci leneen waaye tukki giñ tukki ubbi na seen i bët ubbi seen xel ubbi seen i nopp bañ mujj gis diine joo xam ni ah lañ gis foofa ca diine daanaka dañ jàpp ne adduna bi yëpp noonu la ñuy dundee wute naag amaane lañ leen yaroon wala lañ xamoon kon tukki googu ci loolu lañ jëriñ lañ ci wàllu diine bu baax a baax a baax mbokk yi bu dee wàllu solution yi mën nañ wax ni yii mooy solution yi nga xam ne jàpp nañ ni mën naa indi euh, saafara ci mbir mi euh, moom la ñuy jeexale ba ca jiitu mooy sécuriser li nga xam ne mooy suñuy jeunes yombalal leen ñu am liggéey ci seeni biir réew ñi nga xam ne am nañ qualification yomba yombalal leen ñu am liggéey ñi ay diplôme ñu fexe ba mettre leen situation yoo xam dañuy am liggéey beneen bi mooy ñu ji ci ndaw ñi ci wàllu baaage ci loolu ci programme mu njàngale mi ci lay dellu programme mu jàngale bi ñuy jàngale ñu def ci loo xam ne ndaw li ñuy jàngal <clears throat> day yëg fierté ci bokk ci réewam bëgg réewam du complexé ci réewam du complexé ci dëkk ci dëkk bi nga xam ne moom la dëkk day am yëg-yëg ak cofeel ci li nga xam ne mooy réewam bor bokk ci ñi nga xam ne dañ ko war a jàppale pour réew mu jëm kanam bokk na ci mooy may suñuy borom alal yi nga xam ne ci réew mi lañ dëkk jigewuñ bitim réew fii lañ dëkk yor nationalité réew mi juddoo fi yoroo fi maggee fi defal leen ay privilège ci kaw étranger yi defal leen ay privilège ci kaw étranger yi bañ a jël étranger yi favoriser leen ci kaw suñuy borom alal yi nga xam ne suñu réew lañ dëkk <coughs> étranger bi bu jógee fa lañ jox koy hectare mu am suuf su mais hectare koo ko jox mu dem joxe ko ci banque yi garanti am xaalis waaw léegi lu tax ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor nekk suñu borom alal duñ leen joxe hectare duñ leen yombalal lu toll noonu duñ leen yombalal lu bëree bëri ci yenn marché yi état di joxe ñu mën ko am loolu bokk na ci li nga xam ne ñoom su amee ñu dëkk ci réew mi jël doomu réew mi ñuy liggéey ci seen suuf wala ci seen i société seen entreprise day tax mbir mi ubbi ay bunt ci xale yi mën a am liggéey beneen bi mooy suñuy autorité liggéey liggéey bu sérieux liggéey bu sérieux bu tegee ci xam-xam ci euh, vision tege ci vision ci li nga xam ne mooy amal solution ci li nga xam ne mooy wàllu chômage bi boo doomu réew mi ñu am fu leen mën a insérer bokk na ci aussi mooy euh, yombalal yombalal jeune jeunesse réew mi ñu mën a am ay dëkkuwaay kenn ku nekk xam na ne dëkkuwaay ci Sénégal jafe na te am ñoo xam ne jàpp nañu liggéey bi ñu am fii ci biir réew mi mun ñu ci am kër foog ñu génn ci biti pour mën a am pour mën a am kër bokk na ci. yombal li nga xam ne mooy moyen de transport yi ci anam yu wute moyen de transport yuy jaar ci suuf moyen de transport yuy jaar ci jaww ji moyen de transport yuy jaar ci ndox mi ci biir réew mi bokk na ci aussi mooy fexe ba yombal wàllu faju ku bëgg faju faju réew mi faju dafay jafe faju dafay jafe daanaka faju boo nekkul borom alal wala amoo relation boo moytul feebar bi nga am mën na laa yóbbu barzaq mbokk yi lislaam daganal la ci ay njabootam ay doomam ñi bokk ci lislaam ñu génn ci suuf si dox ci suuf si euh, sàkku wërsëg bu leen yàlla wërsëgal ci suuf si ci anam boo xam ne bu dagal la borom bi neen huwa allazi jaalakumul arda zalulan famshu fi manakibiha yàlla moo leen tàggatal suuf si ba mokk ngeen mën ci dox dox leen ci suuf si wa kulu min rizqihi ngeen lekk ci wërsëgu yàlla waaye ngeen bàyyi xel na ci yàlla ngeen di dellu mu dekkal leen fay leen wa ilayhi nusur kon lislaam daganal na nit ki dox ci suuf si fu mu mën a jàpp ne wërsëgam nekk na fa ci anam bu dagan mu daal di koy wuti waaye mu nekk wërsëg bu dagan ñu sàrt ci tamit mu bañ a gaaral bakkanam ci loo xam ne da koy alak borom bi nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen tabbal seen bakkan ci loo xam ne daf leen di alak borom bi dellu waxaat ni wala taqtulu anfusakum bu leen rey li nga xam ne mooy seen bakkan bu leen rey seen bakkan mooy bul def loo xam ni dalay rey mbokk yi li ñuy jeexale mooy bu fekkente ni gàddaay dem ci mbëkk mi ci anam boo xam ne da ngay wuti sa wërsëg mën naa tax sa bakkan faatu leer na la yow soo duggee ci façon bii am nga yaqiin ne da nga ciy faatu kooku waroo dem boo jàppee it ne mën naa am nga rëcc waaye li gën a njort bi gën a rëy mooy su may rëcc samay chance dafa minime quatre-vingt-dix pour cent ci chance yi ma am mooy du jàll di pour cent yi rek laa jàpp ne ci chance damay jàll kooku aussi wóorul kooku charia da lay tere danaan la bul dem parce que da ngay sa bakkan en danger su fekkee wuti wërsëg dafa dagan rey sa bopp dafa araam rey sa bopp ci kabaa'iru zunubi ci la bokk ci kabaa'iru zunubi ci la bokk loolu moo nit ki war a bàyyi xel léegi nag ñi ñenn ñi naan euh, dugg ci xaru la xaru dañ ciy sart kii xaru dafay yéene day yéene xaru kii dem gaal gi yéenewul xaru moom dafa yéene wuti wërsëg kon yéenewul xaru moo tax duñ ko considéré ku xaru waaye nag mi ngi mettre bakkanam mi ngi mettre bakkanam en danger boo xam ne nii charia ah, mën na ko caa yedd mën na ko caa yar allahuma ya man amjayta ibrahima min annaar wa radta yusufa li abihi wa shaqaqta li musa albahra wa qazafta yunusa min batni alxuut ij'al lana min kulli diiqin maxraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli balaain aafiya allahuma inna nas'aluka alhuda waltuqa walafaafa walghina allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina muhammad wa yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci biti mu leen di jottali xam-xam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gën a jëm ci kanam. yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxaw